xasaayid yi ak lawhul mahfuus ci gàttal lawhul mahfuus mooy àlli woy sunu borom ji nga xam ne lépp lu nekk lu am ma nga ca mu bind euh, ñu néew ci ay xejjam di ko gis ñenn ñi di gis lenn li ñenn ñi di gis lépp ca kemtulaayu nañ koy gise muy lu màgg itam ci sunu borom ndax ci ay mbiram la bokk waaye foofee sëñ Tuubaa nee na xasaa idam yi fa koy toxale fala koy jële te nee na loolu ku am xel wala ku xellu du ko werante nee na kitaabati min lawxi rabbi tanqulu laa yamtari fiiha nabihun yaqilu sama mbind yi maa ngi ko tuxale ci alliway sunu borom ci te loolu day ku amum xel du ko werante moo tax ñëpp laxat daf daa wax ne lu Serigne Touba bind bu sa gis neexee boo xoolee gis ko lawhul mahfuz lépp loo xam ne wax na ko boo guddee fan teg ci sa bët lawhul mahfuz boobu sax sax Serigne Touba dafa wax ne jëmmi alliwaam moom li muy binde li muy binde xasida yi ak xalima gi mu koy bindee bu dee alliwa ji daal jàkkaarloo alliway sunu borom ji xalimaam jàkkaarloo xalima sunu borom moo cay toxale di bind waajaha lawxi wa qilaami lawxa wa qalama alladi wa awxa alliwaam ji muy bind dafa jàkkaarloog alliway sunu borom xalimaam jàkkaarloog xalima sunu borom muy tuxale foofu di bind moo tax mu wax ne aktubu naaqilan min allawxi wa min qalamihi wa fi xuruufi lam amin li muy bind lépp maa ngi bind di ko tuxale ca lawxul mahfuus li may bind ak sama xalima lépp araf yi may ciy bind yëpp ci lawxul mahfuus lay joge te duma fet duma wax mukk lu du dëgg aktubu naaxilam min allahi hafiz maanaa ya ridwanul aliyi wa latif baat yi muy wax ak maana yeeg yépp mang ko jele ci lawxul mahfuus motax neena amna ku masa koo xam ni xamis na uturam suñu def ko jox ak qasida mu di xol ba aksi ci ab baat bu xawa jaf yakarna yaakaar naa sëñ ma bànj dama dama dama teewloo turu deug deug sëñ bi laaj ko bu ngeen masaa gis baat bu jafe fu ngeen koy xoolee mu ne ko ci mun jin mbaa xaamoo sëñ ne ko foofa ku fay seet samay baat yu jafe doog fa gis mu ne ko kon fu ñu koy seeti mu ne ko ca lawxul mahfuus sëñ bi mu daal di téen daal di téen ngir xool ko sëñ ne ko looy def nii mu ne ko fu mu féete sëñ bi ne bisimilah yow de yaag yàlla mi yaag ñi naa yàlla mi ngi tiim wuute wu leen ne ko lawhul mahfuus buñ la koy wan fu sa jë jëm rek fu sa jë jëm foofee la foofee fu sa kanam jëm rek foofe lañ la koy wane ci gàttal kon lool tegtal la ci ne xasaayid yi Serigne Touba yi lépp ci la lawhul mahfuus la bàyyi ko lu mel ne xasida ko kaana xam ni ko Serigne Touba feeñale lool tegtal la ci ne day toxal di indi moo tax daf daa wax ne mën naa nangam neexul waaye man dañ naan ma uktub rek bindal rek ma jóg bind moo tax ah noonu mu amee wàccuwaay ci lawhul mahfuus it noonu la ko amee ci xaras sëñ Tuubaa dafa wax ne